jataay boo dem rek wax na ca lépp luy defar nit rek sëriñ Mbaye wax na ca lépp luy tax a doon as gor Serigne Mbaye wax na ca lépp luy tax a am jom Serigne Mbaye wax na ca lépp luy dëgëral ngëm Serigne Mbaye wax na ca loolu nag mooy donoom kon ja gajaga ñaan gi nga ñaan yooyu itam yal na la yàlla jàppale nga gën fee teew àggale la sa yéene ci dëkk bi ak sëriñ bi ci barke sëriñ Touba. mbooloo mi taxaw ngir am yéene defar xuru Mbàkke ak daaru Mbàkke ñoo ngi sàkku seen njiit sëñ Cheikh Fall li mu ñëw jël kàddu moom itam feeñal yéeneem bala ñu jox kàddu gi sëñ bi ndax ñoom itam loolu ñu taxawal taxawaay bu am solo la waaw taxawaay bu am solo la ndax bay ci say woom loolu mooy li am solo bisimilah. barke Serigne Mbaye Jaxate barke Serigne Mbaye Jaxate barkeb Serigne Mbaye Jaxate ndax yàlla may na ko lu ni jaarale ko ci Serigne Touba mu nekk loo xamante ni lu ko ñëpp nungul la te déggoon ndigal amoonu taalibe moo ko waraloon sëliñ Touba defal ko lim ko defal Serigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax yow ak njaboot gi nga àndal yépp di la ziyaare te di la ñaanal nga yàgg fi te wér di sàkkuwaat ñaan ci yow bu baax a baax a baax a baax suñ la nuyoo rek nuyu nañ ñëpp ñu fi teew te li nga xam ni moom lañ sumb ñun ci sa ndigal lañ ko sumbe nga ñaanal ñu ci defal ñu ci loo xamante ni tamit kawe suñu njot ndax lépp lu ñuy def ci dëkk bi dañ koy def ngir suñu jëm yi defal ko ngir jëmbi sëñ Bay Jaxate mi nga xamante ni Sëriñ Tuubaa moo ko may lépp kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bañ bokkee ci ñi nga xamante ni dañuy jël suñu dërëm wala ñu jël suñu ñaq di ko def ci Xuru kon sant yàlla la bu baax ndax am na ñoo xam ne buñ sañoon di jël seenu dërëm am fuñ ko jaarale ba mën ak Xuru waaye gisaguñ ko lii ñu taxawal nag dañ koo taxawal ngir lépp loo xam ne day suqali Xuru ci lu baax moo xam lu mu mën a doon luy leeral dëkk bi moo xam lu koy defar moo xam lu mu mën a doon ñu ngi sàkku mbokk yépp ñu dugal ci seen loxo te ñu ngi ñaan ñépp képp kuy dégg sama kàddu lépp loo ci man ngir def ko nga def ko ngir jëmmi Serigne Touba ak sëñ Mbaye Jaxate ndax dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne ñun ñi génn xam nañ lu bare bare bare bare bare ndax boo nekkee fu mel ni université da ngay gis koo xam ne mosut a ñëw xuru mbaaj waaye day teg wala fa li sëñ Mbaye Jaxate di ko déglu boo waxee mu ne am njàngaleem sëñ Mbaye Jaxate li muy wax day mel ni koo xamante ni yow lay waxal yow mi toog kon loolu ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi suñ borom dogal ñu juddoo fi yaroo fi kon dañoo war a sant yàlla bu baax a baax a baax wax alhamdulilah maa ngi ñaan mbokk yi képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu te mën a barkeeloo ci carte yi association la boo xam ni Daaru Mbàkke ak Xuru Mbàkke benn la dañ koo taxawal ngir lépp loo xam ne war nañ koo def suñu première sumb muy fii ñu toog fii ñu toog balaa déwéne maa ngi ñaan suñu borom ci barke Seexul Xadim ci sëñ Mbay Jaxate mi nga xamante ni mooy borom dëkk bi lii ñu sumb nii balaa déwéne képp ku fi ñëw doo fekk ab baas nga fekk fi tabax boo xamante ni mbaar la moo xam ne dañ koy karole ba mu àgg fa mu jëm objectif association bi loolu premièrement ci la bokk ñi ngi sàkku mbokk yëpp ñu dugal seeni loxo ndax ñii ñu àndal fii gis nga gone yi ngeen gis ñu laxasaayu nii ñoom ñooy def weer wu dee ñu dugal seen 1000 francs 1000 francs yi ñu ciy dugal nag ci lañ commencé di def yenn réalisation yi ba am na robinet yoo xam ne ñu ngi koy def fii yoo xamante ni képp ku ñëw ci penc mi mën a ñëw taxaw man cee jàpp ba sell mën a dugg ci barab yi ñaan suñ borom defal la jàmm ak xéewal ñi ngi ñaan képp kuy dégg sama kàddu képp ku ci bëgg a bokk carte bi mille francs la weer wu dee nga joxe mille francs am na carte yu ñu defar association ànd defar Xuru Mbàkke et Daaru Mbàkke carte 1000 francs am na 500 am na cent francs am na 250 am na ñi ngi lancé appel na képp ku nekk fii loo man ci ciment wala fer wala nga mën koo barkeeloo ñi ngi lay taatan suñu kàddu di wax tamit fii ñu toog balaa déwee na ngeen di fi ñëw fekk fi mbaar moo xam ne dañ koy karole ba nga xamante ni duutu ñu jëlu baas di ci fay wala dara loo xam ne association bi moo ko engagé ànd ak murid yi nga xam ne bëgg nañoo liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak sëñ Mbay ñi ngi ñaan ñëpp ñu tàbbal seeni loxo carte yi nag ñi ngi fii képp koo xam ni bëgg nga cee barkeelu nga ñëw barkeelu ci ñi ngi la koy dagaan di la ko ñaan ci barke Seexul Xadim ak sëñ Mbay Jaxate carte mille francs am na fi 500 am na fi 100 francs am na fi 250 am na fi carte yi association bi da koo defar bañ ëllëg kenn ku ko jël dugal ko feneen ñu naan ah carte yi kat daa am lii wala daa am laa moo tax kase bi nga xam ni moo nekk nii ci ginaaw carte bii dañ koo defar ngir lan taf kase ci ginnaaw nga xam ni képp ku ko gis da ngay xam ni carte bi Xuru Mbàkke la jógee association bi moo ko moom ba pare def ci kaseem ci ginnaaw beneen carte boo gis nag ci association ànd defar Xuru Mbàkke et eh, Daaru Mbàkke te amul kase bii xamal ni jógewul Xuru Mbàkke kon ñi ngi ñaan mbokk yi fi teew monsieur la maire Demba ñi ngi lay ñaan nga dugal sa loxo bu baax gis nañ taxawaay bi Cheikh Gadiaga ñi ngi lay ñaan bu baax yow nga dugal sa loxo sàkku nañ nag ngeen jaayante lépp luy ciment wala loo xamante ni fer la wala seen doole fu mu mën a sàkku nañ ngeen jaayante ko lépp lu ngeen man ngeen def ko ak mbokk julli ñi fi teew mbokk taalibe yi soxna yi tamit lu baax lañ bëgg te luy liggéeyal Serigne Touba ak sëñ Bay Jaxate danañ ci def lépp luñ mën a def ñu ngi leen ciy tàllal loxo di leen ñaan képp ku nekk ci dëkk bi wala koo xam ni yaa ngi bëgg sëñ Bay Jaxate bëgg Serigne Touba nga dugal sa loxo quatre mille francs am na fi cinq cent am na fi deux cent cinquante am na fi cent francs am na fi carte membre bi ci boppam pour nga bokk ci association bi mille francs la weer bu dee nga joxe mille francs lépp nag ñi ngi koy teg ci yoon képp ku mu neex fu la neexee boo tëddee ba guddi nga laajte ñaataa fi nekk ci xaalis ñaata lañ ci def loolu yëpp nal nañ ko am nañ foo xam ne heure weer wu dee contrôlé nañ ko ba pare dañ koy dugal ci machine génne ko affiché ko ñu xam ni cotisation yi weer bi temps moo fi am ñu door ko verser ci banque ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax sëñ Abdou ñu ngi lay ñaanal jàmm di sàkku sa taxawaay yàgg di la ñaanal fan wu gudd ak wér rafet na lool wax dëgg yàlla am sa taxawaay ci dëkk bi ñu ngi lay ñaanal suñ borom sàmm la bu baax aar la aar njaboot sëñ bay jaxate gépp yàlla mën na ko yàlla na ko def lii nangu sëriñ bi man yaa ma yaa gën ka gën ka ma gën lii nangu naa ko te rekk laa ko nangul ngir maa ngi lay moyo moy yow yaa ji may maya may mbooloo mi ndax mas ngeen a gis ku ni ak moy ak moy ku koy fayee ak may xaw ma fenn sakkem ku xam ke man na ko man laa jëwat te xamut ku mel ne man ku mel ne man bu gisul woon waaju mel ni ki yow mbiram du jag te doo am mu tit lu koy suturaal moo tax ba man Babacar moo tax ba man Babacar xam naa ne maa a raw mbooleem ku lay sant ngir yow rekk yaa teral sëriñ bi ubbil te tijjil alli afan bunti njëriñ yëpp biir ak bitti fenn nattu yi umal dëjal madd saañal makk sakk damaj fu lor di aw jëm ci ñun bay jàpp tookalayu yal ne njëriñ naa jalañ ndab yëpp naa rututu na jàmm naa xetetet ay wépp dëkk ci jiim sëriñ bi nee nu fi taf aw loru fat sunu lor damay nu ngir yàlla it aw lor wu nuy faña lor te ñaari lor yi ma wax xam naa ne am nga ko ngir yàlla taf li nu lor wi may ni it la lor di sant yàlla ak yonent bi Serigne Touba ak suñ bay jaxate di sant nag sëñ Abdou ak i rakkam ndax mel na ni sàmmoon nañu seen dono sàmmoonte ni ñoog seen dono ndax li suñ bay jaxate bëgg lépp ñu ngi ci li doon bañ lépp ñu ngi koy moyu muy jëfee ndigal yi ak bàyyi tere yi ak taalibe man mii nga xam ni saa baay fii la nekkan di muritu ba wàcc kat sëriñ Mbay Jaxate dab dabartal na saa rafaatal ko loo xam ne néexul képp ku di kenn ku di sam noonu ndax ni sëñ Mbay Jaxate taalifi kat taalifi wu ma waaye nag man maa ngi nii di taalif ay téere ay téere te mënumaa tari alam tara barke Sëriñ Tuubaa te li may bëgg way maa koy sëñ Mbay Jaxate Cheikh Babacar Jaxate yaa jàpp gerte segal foofu diw nga yóbbu ku bëgg a niintee mu fekk si la segal nga barke ngërëm foofu mboot ma yóbbu sa ku bëgg làq ngërëm moo tee mu fekk si la yaar bu daane ñay yow bay sa bal ba muyul ku bëgg a reer nawal moo tee mu fekk si la sa ñay ma nag xuru mbàkkee yaa ko jom dëkke daal fetal ga nag la ca am déglul dinaa la ko wax sëriñ bi moo la ko jox ngay jam di reere ndawal sëriñ bi kum joxub fatal te doo ca diir mukk ndaw te nag banam ba du mooy jamal te may ma ndawal mbay woy nga xaadim rasul jël woy wa tax ko mu sax gàncax ga muy muudu xaalim bay na maa la ko wax mbay bu ma neexee man damay taalif ndax ci sa keppaar laa fekk baax man ku jege ak dex war ngaa mën a tooy buusu nga maa mbay tooyal nga maa mbay tey jii ma wax laa lu tax ñu yéemu bu dul gindi nga gaay yi soññi nga gaay yi Cheikh Babacar yaay waru suñu islam tey jii ma way sangu xuru Mbàkke bu dul woon ak man itam di keneen yaa lépp aw yiw ñu lay fayu yiw ku bëgg aw yiw da ngay jëw mbay ji aw yiw ba sax la nga yiw gi ñëw na loolu bi ñëw na mbay not nga say bong not ci nga say bong daane saxaa bong bu duufu yàpp lay bopp nag moom géwél a koy moom man Moodu xaali jël naa ko yóbbu lay njëmi nag waa xuru Mbàkke lekk la cay at te la te la ko xaajul man sama bopp may naa ca mbooloo sarax ca mbooloo te bopp xaajul lay jëmmi nag wa day nagu baatin te nagu baatin day mel ne ak dex xam ngeen ak dex naan du ko jeexal sa bàyyi da di dex yow it nga di dex nga romb sa bàyyi dem ci sëriñ bi sëriñ bi fan laa jaxate ngay géej gaal yi di sëmb moo di di tëmb may ma sëmb seppi ci jën ya man sama jën woo ba ñu ko toggee ma toj boppam ba lekk ci yuur ga laa loolu damaa ko woy te te te dellu ma baax kon sa am la doon def sa maam a jëriñ liggéeyal la sëñ Tuubaa doon def moom la sa def muy sa maam sëñ Tuubaa def na lu kenn defu waaye sa sëñ Ba Jaxate kenn du moom waaye yéen it kenn du yéen barke sëriñ Tuubaa Tuubaa laa dëkk Xuru Mbàkke gi laa juddoo waaye gisuma Tuubaa lenn lu baax lu ma gisu Xuru Mbàkke jërëjëf Jaxate yàlla na fi yàlla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 mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalib ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk juróom ak santam kenn ku ci nekk ñoo ngi koy fekk ba nekk di ko jox loxo di saako xamante moom di bu baax ci mu def ci teewaayam ci yu rafet yi bàyyi i itte ngir jëmm bis sama jëmm ji moo tax ngeen def waaye nag jëmm ji tax ngeen def ko man na li tax ngeen di ko def ndax lépp sëriñ bi kon ñoo ngi jël suñu nuyoo ak suñu siyaar ak suñu tant ko teg ci loxoy Seex Muhammadul Muntaqa bi nga xam ni mooy fi nekk di xalif général de Mouride ñu di ko fab ak suñu cant ak suñu siyaar ak suñu nuyoo di ko teg ci loxoom waaye di ko ñaanal mu mu mu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak kàttan ak jàmm yu ma sëkk te mucc ci yëpp te mucc ci lépp nopp mucc ci lépp gàllankoor mucc ci lépp loo xam ne lii luy luy luy luy jalgate la yàlla na ko yàlla sàmm te sàmmal ko ñu ko wër <coughs> su ko defee nuyu tam ñu ñaan ñaan muy sàkk moom ak ñaan e, benn lépp loo xam ne ñu ngi digle mbaa mu di ko santaane e, nu ànd ca nu ànd ko moom e, te def ca kenn kàttan te bu mu ca kenn man waaye lépp loo xam ne ñu ngi koy tere yàlla bu mu ci kenn sëy loolu noonu koy ñaan bu xam naa di ko ñaan mu mel ne ay ndawam teew nañ fi ndax Cheikh Mamadou Basir moom yebal na fi délégation bu ma sëkk ci suba gi ci ci ci ci ci diggu bëccëg gi rek xam naa dafa mel ne dañoo nekk ci ay utile moo tax ñu dellu ne waroon nañu xaar jataay bi waaye dafa mel ne dañoo nekk ci ay utile moo tax ñu delluwaat kilifa yëpp teew nañu kon ñoo ngi sant bu baax a baax mu mel ne daanañ def bu ñu toogee ci jataay bu mel nii balaa jant balaa jataay bee tas ñu dénkante fàttalante ci suñu biir loo xam ne si suñu diggante la ñun li nga xam ne ñooy taalibe yi loo xam ne mooy suñu dund te moom la ñu a dund loolu dañ ko fàttalante ci suñu biir tam yal nag ci suñu ci suñu bopp ñu fàtt waaye ñu jiital ci suñu jëmmi bopp yi ak képp koo xam ne kii kon mën a waxal te war ci biir loolu loolu mooy lan leen war a doon lan leen war a doon moom gannaaw bu nekkee ay jullit di sàmmoonte suñu diine lin def te suñ suñuy maam def ko suñuy waajur def ko ñu fekk leen fi ci suñ ci dugg ci biir loola mooy ak njëbbal doon ay taalibe bi njëbbaloo nag doon ay taalibe rekk lañ war a def taalibe nag dafa am loo xam noo xam ne noonu la war a mel ndax sëriñ bi amut lenn lum fi rawe nit ñi bu doon jàng alquran daa fekkoon nu di ko def bu doon jaamu yàlla bu mën a doon xeetu julli woor natt asaka ba ci dem màkka lépp daa fekkoon ay ay nit di ko def ay kilifa yu mag nekkoon fi di ko def te yaafu suñu woon ñëpp ay jàmbaar la wallaay wax kon lan la rawe lan la rawe tarbiya la rawe keroog ba mu ne bàyyi naa jàngale ndax sama boroom nee na naa yar nit ñi naa yar nit ñi ci itte kon itte jooju mooy le moom lay mooy liñ mat a li mat a seetaat ak fu ci waay mën a toll léegi nag sëriñ bi dafa am lu mu def lu rëy rëy rëy rëy xaalis sëñ xaalis Jaw dana si ñëw incha allah si kàddu si daanoo loolu sëñ xaalis Jaw soo yàlla jéem mi ngi ci baas bi dana si ñëw gën koo leeral te mooy sëriñ bi daf noo boole defar ba kenn ci noonu am nga may boo xam ne bii jomb na la may gi nag ku dul sëriñ moo tax lii xew ndax kenn ku ci nekk ci noonu sëriñ bi fexe na ba boo toogee sëriñ bi toog boo summiwul sa mbaxana kenn mënu la mënatu la xamee sëriñ ndax lim sol nga sol li muy dundee ngay dundee boo suppul kon boo suppul sa ñaari bëti woon ci suuf toog summi sa mbaxane kenn xam ne tulaat si yéen a boobu nag ak bopp te ñaat niroo boobu nag li muy ak wóote dafa am ci biir ndax nit ñi bi kenn ku ci nekkee sampee sa ñaari tànk ci suuf sa bopp féete kaw loolu ñëpp ko bokk na waaye foofu la wóote gi tàmbalee nañ xam loolu bu baax te bàyyi ko xel ñëpp a bokkale loolu waaye duñ bokkee loolu bokk benn nu ñu bokk wenn melokaan duñ bokkee loolu ba noppi la wuute ki tàmbalee am kon yàlla dafa bind Muhammad alayhi wasalaam ne kii moo gën ne jikkoo ngi nii moo gën a jafe jikko ne kii mooy nit masalan nee kii mooy nit kon nan la def mooy képp kenn ci noonu na nga xam ne représentant nga ci kaw suuf ñu sa borom tabaaraka wa taala noo koy représenté nag kii mu ne moom la ni mu mel noonu ngay jéem a mel du tax nga mel ni moom daa du tax nga mel ni moom gaa waaye nag dana tax nga tane ñu ko difu loo ko niru nag loo ko niru rek ci jikko ci xam-xam ci façana ci ci taar ci comportement nu mën sëriñ bi nag lim nu rawee du dara lu dul bëgg leen bi bëgg génn bëgg kepp di jaamu kenn ket te booliwu sa dara di jaamu yàlla boroomam kese te nanguwuta doon jaamu keneen nanguwuta doon jaamu leneen jaamu yàlla képp la bëgg lan la nangoo doon nanguutu doon jaamu keneen nanguutu jaamu leneen yàlla képp la nangoo jaamu te yàlla képp mooy buur bi nga xam ne moom la jaamu jaamu ga di jëriñ ñàkk gaa jaamu doon lor ba mu xamee loolu doolu jële si kuñ Muhammad alayhi salaatu wasalaam képp moo fi indi diine ji nga xam ne moom la suñu borom mujjee joxe te du joxe jeneen diine te diine jooju ku ko fi bàyyi nekk ci jeneen la nga nekk pertement la alxuraan na ko du ban dama koy nettali waaye li ma wax du man alxuraan la ko ba Sëriñ Tuubaa xamee loolu ca la yem moom doo nga la digle itam amut leneen weneen yoon woo xam ne sëriñ bi daf koo xàll nit ñi war jaar muy yoon bu yees lu ci waay rawee nit nag ab yar la ab yar la dee fi gën a nit ab yar la dee fi mane nit ab yar la dee fi rawee nit ndedu alal ak rëy juddoo ko jur mët la damoo ragal yàllaa mato damoo te ka ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax ma ku la mayoon junni it te fa bu lu yar may la yëpp nga gis junni yi rob yar for ko sax ma ne moom sëñ bay jaxati neen bul ñee kale daane waajaay ak alal ak nit waaye fu lambi yar dëgg yow wàllil te bul daan ab yar doo nga am solo gis nga murit lu ñu tudd murit gi bu ci yàq jeexee na ku ñuy tudde mu murit bu cab yar jeexee jeex na lii xew nag ci jamono sëriñ bi wax ba daanee ñu ne waaye waaye mbaa ñu ne sëriñ bi wuru koon wax mbaa sëriñ bi def ñu ne sëriñ bi wuru koon a def yooyu moom nañ ko teg suuf ku ko tegu ci suuf la ngay wax yaa koy wax waaye sëriñ bi wax ko ci mbirum mbirum sëriñ bi nañ bàyyi waat xel yi te déglu si suñu xel ci lañ war a doon ay bi lañ war a doon kadaa digle mi ngi digle ba tey kadaa tere mi ngi tere ba tey bàyyiwul sëriñ bi daa war a wax nag nañ ko teg suuf la sëriñ bi wax na sëriñ bi sëriñ bi wax na def na bind na bàyyi kon dara gis léegi li des mooy ñu xool ci ñu xool ci li muy def loolu ñu xool ci li mu fi doon def wala ñu jàng ci li muy bind mbala ñu diglu ñu ko fi nekkal liñ fi li fi ñu teg seen tànk ñu nekk fànn ànd ci loolu te bàyyi corriger sëriñ moom melu du mel mukk nu mu wër ta mel kon nun mel rek noonu melal suñu bopp waaye sëriñ moom ni war a mel mel na li mu war a def mi koy def li mu war a mi ngi koy wax ndax li ñuy ndax li ñuy wax def ndax loolu mi ngi am njariñ ci xoli nit ñi walla amut njariñ loolu la ñuy jàngat bu sëriñ bi waxee ba noppi ñu am ay nopp di déglu te di taatu nañ ko ci sunuy xol teewlu wuñ ko bu baax su wax ji daanoon wax ji dun amal benn njëriñ ndax kenn ku ci nekk sooy wax te li xew ci réseaux sociaux yi nañ ci ndax wax ji may wax doy wóoru wóoru ba nii mu koy waxee buñ koy nettalee ci réseaux sociaux yi ndax nii lañ ko ci tegewaat wóoru ba tey waaye nañ na ma ñëpp déglu ak nopp ku tooy ku teew fii nag ma déglu bu baax a baax li may wax boo déggaatee ci réseaux sociaux yi lu wuute ak nii mu koy tëggee nga xam ne kii wax nii am na lu ñu def ci waxam ji moom du ko te loolu lu mat a bàyyi xel réseaux sociaux yaa ngi fi comme neex nga dugg ci sim néeg dagg say baat sofale dagg baat bi sof ca bële mu mel ne bokkut ak naka noonu mu mel ne mu mel mu mel ne bokkut ak ka doon wax la muy wax te ña teewoon ca wax ji bu ñu déggaatee wax ji xam ne lii bokkut ak ka kooka la mu doon wax te loolu ñu ngi koy def yéen ñëpp yéen a ngi koy seetaan bés bu set ngeen di ngeen nekk nit ngeen taxaw fu barab ni diw nee na te lan diw wax bokkut ak nam ko wax bokkut ak ñi ñu koy nettalee te kilifa gu ne loolu dal na te kenn mënu foo mooy kon déglukat yi bu ñuy déglu fi ñuy waxee kenn ku ci nekk na nga fexe ba la ñuy wax soo ko mënee bind nga bind ko soo ko mënee enregistré nga enregistré ko en normal boo déggaatee réseaux sociaux yi ñu dagg tey waaxu ca nga xam ne lii dañ koo dagg dañoo sof lii dagg lii sof lii waaye wax ni melut nii te loolu mi ngi dal kilifa diine mi ngi dal suñu kilifa aada yi ñu ngi leen di yàq ñu ngi yàq jàpp seen wax di ko yàq te ñi koy def ay nit lañ rek ñenn sax ñu ngi tuddoo ay taalib waaye taalib gi dañ ko seetaan sunu taali bi nañ ko seetaat rafetul de nañ ko seetaat bu baax te gën koo rafet kon sama bokki taali bi yéen lay wax nañ seetaat suñ bopp te genn di ko waat yëf yi te xoolaat sëriñ bi te jàngaliwaat sunu doom yi fexe ba terbiyee sunu doom yi delloo leen ci daara yi te jàngal leen alxuraan te jàngal leen xam-xamu diine te yar leen ci diine ba kenn du leen mën a ndax ci leneen ndax coow li lépp ñàkk xam-xam moo ci gën a bari wala ñàkkum yar bopp te aful am na lu ñuy tudde xam-xam waaye sëriñ bi nag nee na nee na xam-xam du càgg ne xam-xam yépp ñoo yem xam-xam yépp yemuñu boroom xam-xam yépp it yemuñu ndax am na ci xam-xam yoo xam ne la ñuy yóbbe seen boroom mooy tëgg dënn xanaa ko moom wala xala xanaa ko moo kii mooy kan mooy kan xanaa ko moo kii mooy nangam mooy député bi wala mooy ministre bi wala mooy président bi wala mooy lan ba du ba yow ba yow bokku leen dara yow mi bokkan moom nday bàyyi tegatuñu la fenn doo nit waaye yow doo kenn waaye moom du nit ëpp na ëpp na nit moom ndax lan ab garaat bu mu takk wala alal bu bari wala dafa bari xam-xam wala nangam nangam wala nangam wala nangam wala nangam yooyu yëpp xam-xam bi am njariñ xam-xam bi am njariñ nañ ko seetluwaat xam-xam bi lay delloo ci sa borom tabaraka mooy xam-xam bu baax xam-xam bi lay delloo ci yàlla xam-xam bi lay xamal li ngay war a jaamoo yàlla xam-xam bi lay xamal kan mooy yow ndax nit li muy tàmbalee mooy xam boppam kon nañ jéem a xam suñu bopp jéem a xam jéem a xam seen bopp jéem a xam suñuy bopp jéem a xam li nu bokk jéem a xam neen koy bokkee su ko defee nu mën koo bokk te yàlla tax ma lii muy kàddu yi nga xam ni lu mu gàtt-gàtt nee naa danaa ko tënk tas ko mooy li nga xam ni moom laa am yéene ci sama bopp yéene ko ci bokki taalib yi yéene ko jullit ñëpp ñu bokk ko jariñoo loolu laa ci yéene bi ci des nag bi nga xam ne nag moom laa bëggoon a yóbbante du bu préfet teewoon comme préfet teewut ma yóbbante ko eh, ñi ko fi teewal te mooy monsieur le maire ak ñi mu àndal monsieur le maire ab docteur li muy bëgg a wax nii kilifa yëpp a ngi teew samay kilifaa ngi fi kilifa diine yaa ngi fi kilifa aada yaa ngi fi donte préfet téewul commandant téewul ak ñooñu te ñooñu laa bëggoon a dugal li may wax ci seeni nopp waaye gannaaw maa ngi dugal ci noppi ñi leen ci teewal kon ñooñu nañ ma dimbali li laay wala soo jottaleel ma sama kàddu yii ba mu àgg ci ñooñu ndax dama bëgg a wax ne li tax ma di ko wax du dara lu dul ab docteur bu la dee faj di la faj di la faj ba weer bi del si déwén nga yëg ci sa yaram ak tan xam ne am nga tan bu baax waaye nag am nga foo xam ne fuy metti la fuy metti fu des di metti war na la nga teg sa loxo fay metti ne ko docteur di fii moom mi ngi metti nag mat naa saafara su ko defee dana ko sawarloo ca paj ma dana tax itam mu xalaat loolu dafa mat a dellu xel dafa mat a bàyyi xel mat a bàyyi xel la kon moo tax yóbbante bi ñu bëgg ko wax yóbbante bi ban la bu gàtt la muy daara daara sëñ daara dafa amul doole dafa dem ba ca àll ba mu mu samp mu mu mbaar fa mbaarum gattax samp fa néegum ñax di taal mat kooku toujours mi ngi ci te yàllaa tax yàlla képp koy sàmm foofu ba ca tege day bañ day bañ ngir dong yu dund day bay ngir dunde ngir waaye day bay ngir dundal ay dongam loolu lay def la muy bay rek la yaakaar waaye la muy bayee ak jur la day yor ay fas wala ay baam wala ay nag wala mu jéem ay kocc kocc lay xar di leen yar ci tool ya waaye mu dëkk ak ñaar ñaar la dëkkal sécurité nañ ma déglu bu baax ñaar la dëkkal ab sàmm ak akub luubalkat du ma tudd mu baax saratan waaye ab sàmm la dëkkal akub luubalkat li ñuy bay ak li ñuy sàmm ak li ñuy napp ci ndox mi loolu la adduna bi di dundee lu nit def ci biiram ba mën a taaw ci ñett ñooñu la jugee li ñuy bay li ñuy sàmm ak li ñuy napp ci géej ci lu nit di dund ci kaw suuf ci loolu la jugee kon ñooñu nañ leen bàyyiwaat xel sécurité bi ma bëgg nag ba ma bëgg wax nag mooy su su ma nekkee ca tool ya di bay bàyyi fa ay dongo bàyyi fa sama njaboot ñu nekk fa nekk ca tool yi di liggéey nekk ca daara ji di jàngal gone ya su nawetee ñu nekk ca tool yi di kër këri sàmm bi jóge fee bëgg a boole moo ga ak tool ba sàmm ba noppi nag yor ngànnaay te sama te dongo boobu yorul ngànnaay moom ñu ñu protéger sàmm bi ne ba ba nga xam ne sàmm bi moom bu ñëwee mën naa yor ngànnaay dugg ci tool bi buñ dàqee jur bi mu génn ngànnaay ba gaañ gone ci tool bi ñu ne gone nag bul fayu lu yàgg yàgg bul fayu boo fajoo yaatoon lañ dégg li may wax bu baax te balaa gone woote fa muy wootee ak fa muy wuysee dee bu yàgg lay doon ndax sécurité ba sori na te ñëwewul ak léegi nga naay ci kër gi ñëw di fay sëñu ko ndax boo ko defee léegi moo tooñ tooñ gépp dañu yëlbatu ko teg ko te moom te moom de toolam bii mu nekkoon moo ne demut sa mbooy ga ba tool bi mu ngi tool bi rek ba tey tool bi demut sa mbooy ga ba tooy ba tey tool bi demut ci gétt gi waaye nag luñ ko mën a def dañ ko daan gunge te woote te woote wal te ki koy wall si moom balaa ñëw loolu mën naa def bërki démb mën na maa teg baaraam léegi ñaari at ci gannaaw ci genn jenn daara laay joxoon jenn daara rek laay joxoon ñaari at ci gannaaw rey nañ fa ab do ab dongo ab dongo ak ñaari at ci gannaaw rey nañ ab dongo ci ma joxoon sëñ Mbàkke naa mi jotaay bi toog mbaa suri mbaa ñu nañ ab ren ci loolu bu tooy rey nañ doomi boppam ci benn tool te karayoon doom karayoon dongo ba bu jëkk dañoo wax ne bi ñuy rey doom ji wax nañ ne ma ngay séetal ca bi lu may wax lu garaaw la tey lii lu ñuy teg bët la ñu ngi fi ñi ko do- ko ñi intervenir ñu ngi fi loolu lu kon fii day metti naa fi teg baax ndax dama bëgg mu saafaraw docteur bi teew na saa jàngoro jaa ngi nii ci jàngoro ji dale ngi nii mi ngi jooy daa bëgg jàngoro jooju ñu seet nuñ ko koy saafaraale kon jenn daara ji ñaari xew-xew yi am na fi te daara jam yi ak sama daara man soriwul kon maa ngi tiit loolu ak si ci beneen sama daara ci boppam sama ñaari machine mbay lañ fa jëkk sama ñaari machine ji lañ fa jëkk a sàcc sàcc ak ci si sama ñaari fos def naa déclaration dara dara fii dara fii dal na maa ngi dégg fii lay metti docteur fii lay metti docteur fii day métti nañ seet bi ma ko saafaraale fu bari nag maa ngi sant bu baax nag sant naa bu baax nag ci li nga xam ne métti fajal nañ ma ko te metteetul waaye maa ngi teg sama baaraam ci fiy metti ngeen xam ne mi ngi metti te mi ngi metti lu si ñaar ñooñu ci weesu tëli bii bopp ki ñu xar boppam ba léegi mi ngi faju wéeragul te nag mi ngi nii ci dëkk bi la dëkk ci kër si ñëpp bu pal bii ci deesi lañ ko dóor ci bopp kon fii docteur fii ngi metti teg naa ci sama baaraam mu ngi metti nañ seet nu ñu ko fajale ay nit suñuy bokk rek lañ ko seqal te mënuñoo fayantoog ñoom waaye kenn ko ci nekk bu yemee fa mu war a yem di def la mu war a def ma ne jàmm képp ay am te lii may wax nag dara taxul ma di ko wax lu dul bëgg jàmm wallaay lancé dara taxul ma di ko wax lu dul bëgg jàmm kilifa yaa ngi nii teew nag di kilifa yi aada kilifa yaa ngi nii teew di ma gaaral lii ñu xam ne état bi li war a def mënuma ko cee sikk man joxuma leen toor waaye nag bëgg naa ko ñu sécuriser ñun waa daara ban am jàmm ndax bëgg na noo jàmmoo ñun dëkkal ñun dëkkal bëgg na noo am ak ñoom jàmm bëgg na noo am ak ñoom relation te it wax dëgg yàlla am na noo séq nañoo ñoom jàmm ndax séq nañoo ak dëkkandoo ndax wax dëgg yàlla bu dee ay bu bu dee suñu bokki sàmm yi ñëpp ngi ci tànn te seen njariñ lañ kon joxuma leen toor waaye nag bëgg naa ñu dëkk ci jàmm bëgg naa ñu dëkk ci jàmm bëgg naa ñu dëkk ci jàmm bëgg naa ñu dëkk ci sécurité sécurité kon bokkuñ monsieur le suñ kàddu yii yéen journaliste lessi na ko jël na ngeen nu ko jottali fu mu mën a àggee fu ñu yaakaar ne bu fa àggee ñu am fa wallu fu ñu yaakaar ne bu ñu fa àggee ñu fam ndoxum jàmm sotti ci suñ diggante nañ ñu àggaleel foofa suñ kàddu yii ndax jàmm rek lañ bëgg te bu ko kenn monte nag na mel nii bu nu kenn monteel suñ kàddu yi na mel man maa la suñu daal waxoon ne maane nag bu ne bu dikkee moo ne day doxu man maane bu nu kenn soppil suñu kàddu yii bu nu ko kenn sofaleel nañ nu ko nettali la ñu nu ko waxee ndax ba ñu nu ci ba fu ñu waati ñu nu ko waxee waat ñu nu ko waxee woon waaye nag na mel nii bu nu koy bu nu ko kenn monteel na mel nii te nettaleel na ko nag te nettaleel na ko fu ñu yaakaar ne fu ñu yaakaar yaakaar na bu ñu ko fa tagalee mu faju nañ na ko fa tagalee ñoo ngi sant nag bu baax ñoo ngi bu baax ci taxawaay yi yëpp li ñu war a taxawee lépp taxawee nañ ko ci bis bii fi ñu fi war a fu fi war a taxaw la fa war a taxaw lañ la santoon langa ca man def nga ko la nga ca mënul def nga ko yow monsieur le maire kon ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi gërëm bu baax ñoo ngi lay ñaanal bu baax itam fi nga jëm yàlla jàppale la ba nga yegg fa ndax fii bàyyi nga ko xel bu baax def nga fi loo xam ne benn maire mosu ko fay def xasuma yee jiitu la waaye dama ne def nga fi loo xam ne kenn mosu ko fee ci ñoom ñëfi fi jiitu ñëpp mosuñu ko fee def kon jërëjëf sant nañ bu baax a baax waaye suñu kàddu lii nag soxla nañ moo tasaaroo bu baax a baax waaye soxlawul nag kenn ko na ko soppil soxlawuñ ko na ko monte nañu ko dimbali ba mu mel nii jërë ngeen jëf eh, in uridu ila islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mountakha te may nu way ci topp ndigal sëriñ Mbay Jaxate nee sëriñ bi yàlla nu may kàttan ci def lu ko saf te sax ci nag sunu diirub dund sax ci mbél sëriñ Mbay Jaxate nee na àddina lëf mutu cee yàkkamti ngir lu ci ñëw ànd ak ayib ba yeboo sag farlu jëm ci ndigal xëy na ndigal googu ci la sëriñ bi junj tuuti kiy joxe ndigal ak ki muy joxe ndigal ci xeeti xéewal yi sëriñ bi def dañoo amul ak wuute ci saa ir moo tax ci njàngalem sëñ Mbay Jaxate akuk jegeelam mu ne sëriñ dafay nuru sab nawle ka mel na sa kem te goj catam laa ngi nii mujj gaa nga xooje ca ban ku xelluwul dëgg loo jëf-jëf yem ak ku jëful bul soobu dex te mënoo am ndox ba mel ni ki jën sëriñ Mbay Jaxat nee na ku teel a xëy te awoo sam ngir yem ak ka xëyul ku dox ba sànku te yëggoo soo yëgoon banawul fi jamono toll la dafee tolloon sëriñ Mbay Jaxate nii dem ca Cheikh mu al Karim ni jamonoy doxee xéewal gi baawaan kenn ku nekk mu lëng la ba xamatoo sa numéro dikkaat nañ ci mondialisation mu dajale mag ñi ne leen yow Moustapha boo amee as soxla képp ku am ngor ak jom ak ma war caa jéem a def la mu man sa baay a tax koo fi gis am ñuy bay ak fu ñu bay ak ñuy wal ak lu ñu wal sa biir sa jiitu biir la ma man sa bàyyi sànni dërëm teen koo ki sowu di for mu dëgg ak ñëpp di wéy askay sa bàyyi fu gën sa bàyyi gën démb yaa gën tey defoo ko na sax saye mu rëy ñu daal musuloo ko daw la lay dëral nu yal na la yàlla dëral ak ngërëmam ak ndimbalam ma nga yegg jàmm fépp fu gën sëriñ Mbay Jaxate ne ci tënk sëriñ Mbay Jaxate nee na bul jàq mukk ci kuy liiwoo ko tëb ci sa kaw ku yàlla faral nga naagu jël doo daanu sëriñ bay jaxat nee na koo xam ne kii ci ndigal lay wéy ku xëy ne ko xas am gàcce boole mer ak mus ci nag daanu sëriñ bay jaxat nee na kuy aw ndigal ku ko songi daanu jël bu bay jaxat nee kuy aw ndigal ku ko tëb songit mu féeta la kaw ku song yàlla lu am am lef dafay daanu lan mooy ndigal nag da bàyyi sam xel moo tax sëñ Mbay Jaxate naan murit dëgg day dee te deewul asal la dee metti metti jotul ak ak murit amaanaa nga gis waaju tëb dal di dee te doo gis ku tëb dal di def ak murit jaayal xiyaas ak xam-xam jënde def la ñuy wax jaayal kiñaan ak rëy ak xër jënde ak defal da ngay déglu ndigal te kat kuy jàngale léeg-léeg mu def dara yow nga sa xel su gàtt defe ne dafa juum fekk daf lay jàngale boo xamul jébbalu nag yoonu murid nag li ci nekk lépp dara du ci force loo sañ a bañ nga nangu ko te yàlla tax lay doon maam Cheikh Rahim Fall mii nga xam ne mooy baabul muridina fes na ci ba muy tëral lii dañ am na mbokkam mu ko jege mu ko daan wax maa bëggoon a xam fan ngay mujj ak sa waay sa moroomam jaam mu dugg ci jàkka nga toog ci bunt ba di ko nekk mu summi ay dàllam nga di ko ŋàbb mu di la tafli nga di ko raayoo mu lay woo ngay wuyoo aw santam nit jigéen maa bëggoon a xam fooy mu jël sa waaye booba mi ngi doon jàngale na tolloowuñu kenn ku ne am na lu la sut ka nga dendal lëm lël nga xam ne si jotoo ko mu sut la nan ngay def ba mu jottali la ko waaye maam Cheikh Raye Fall réussir na ko ndax ñi dund dëgg-dëgg taalibe kenn ku ci nekk sa li wut boo dajeeg sa morom taalibe da ngay ne mën nga koo am ci moom mm-hmm. ba ba àddina tukki kon maam Cheikh Rahane Fall ndigal mooy bëgg a ci lan ngërëm yërmande ndimbal sutura teraanga ak ngërëm dañoo taqaloo cuune du leen tàggale waaye ni ma la koy jegee la ba nga mën koo dégg mën ngaa am sa gan goo fonk nga dem ci dëkk ba jënd am xar defar ko ba mu baax lañ ci war a def lépp ñu def ko ci bu ñëwee ba la ca doomu aadama war a jëfandikoo jëmm mën naa ak si joo xam ne xamoo ko woon ñu di ko waajal moo moo ciy ëppale kat ñu ko doon waajal waaye sëriñ Mbay Jaxate gi leeral ne la lu coow li bëri bëri ak lu mbooloo mi xumb xumb jërëjëf duñ ko wax ko jëfu daxalawul azim waaye nag murid yi ba tey dara rawagul nan delluwaat rek ci tegtali sëñ Mbay Jaxate te xam ne sëriñ Touba li ko taxoon a jóg mooy biri bindeef yëpp yëwén dafa bokkoon ci ay bëgg-bëgg sëriñ Mbay nee na foo gis ku bon ne ko yal nañ yàlla boole yërëm xamal ni nit amewul boppam de kon nu jubal sëriñ Mbay Jaxate nee na lu bon taxul kenn jóg kuy dox di def lu bonit seytaane mbër ma a koo mën waaye jubluwu kon ñëpp ñuy ànd muy daayira bi muy kër gi muy soxna si muy sëriñ bi kenn ku ci nekk nan delluwaat ci sëriñ Touba nekk sànnaf xin bila dararin kenn ku nekk ka nga dendal lëm jotul nga di ko ko jottali te yàlla tax te wattandi ko weerante bi ak maa ko njëkk a def maa ko gën a mën le daayira bi ba ko sëriñ Cheikh Mbacke sos lam ko sose woon dafa bëggoon suñ sutura yokku suñ teraanga yokku ku bokkul ci nun du ñu yàpp loolu nañ ko delloosiwaat xam ne ngërëmul sëñ mbàmba lañ ciy wut te sëriñ Tuubaa moom la sëriñ Mbay Jaxate sëriñ bi kenn mënu koo nax ngir dafa yëri xol moo tax ba kenn mënu koo jommal ba am ngërëmam ku wax mu dégg ku fas fas fas mu yëg la nga def ku gis mu def mu ku def mu gis la nga def ku jóg mu jëm xam mu xam fa nga kooku nag bu ngeen dee ànd ànd bi na ngeen ci xool Serigne Touba kenn ku nekk lam manqué yàlla def na ko ca moroom ja mu mottali ko te yàlla tax loolu moo ko mën a defar moom la mag ñi ànde woon buñ daan dem ci sëriñ bi boo yoree ab junni sa moroom yorul dara da koy xaaj ci digg bi jox ko juróomi téeméer ngeen ànd dem siyaare sëriñ bi xam ko dara wump ko ngeen ñëpp ngeen am ngërëmul sëriñ Touba bu yàggee ngërëm li day fengat bay falax kenn du rëbbanteeg sa moroom waaye li am léegi yi nuroo te bokkul xàmmee leen ko ki ngeen di liggéeyal sëriñ Bamba wowoon na mag ñëpp ñu daje mu ne man de yàlla musal na ma ci yàq du ma juum du ma jaawale du ma fàtte yi nuroo te bokkul invitation ak convocation daal bokkul sama gaañ yépp nag woote la convocation dañ lay jox heure dañ lay jox jour bi bis bi boo ñëwee da ngay toog buñ la yeewi wut doo dem ab woote la de waaye invitation bi sëriñ Bamba def su la neexee ñëw heure bu la neex ngay ñëw saa bu la neexee dem boo ñëwee bañ toog tam cotisation ak participation bokkul bu ñu ne dañuy cotiser cinq mille ku joxe trois mille ñu fi toog ñëpp dañuy xam ne dese nga deux mille ku joxe deux mille ñëpp xam ne dese nga trois mille bu dee participation la nga mën ngay joxe heure ba nga koy joxe te kenn du weeru nan bàyyi weerante bi sëriñ Saliou Mbacke mu baax mi la daan xëy bu demee ci gone yi bu fekkee ñetti gone saw ci lal day dellu ca biir jër satala gi bu ñëwee tooyal tuba yi ñëpp bu ñu ñëpp ku nekk sa tubay tooy asalaamaaleykum wa rahmatullah amin